Binta Ba wallaay damaa yàqoon nekkatu fi. Hmm, gisatuma ko de. kaw Binta moom kon naa war naa sangu ji nag. waaw nga fay ba mu na ko waxee ne ko Cheikh kooku du ma ko déglu sax. ah wallaahi laa si bu ma ko doon déglu ne la dama koy déglu parce xam naa ko Binta daal loo xam naa ko waaw. mais nag léegi ñoom ñett xam nga nag ay tur moom diw nangam diw nangam mais kenn ku ci nekk de mën naa laa wax ci moom li ma gis ci moom rek suñ mako ko. li tax ma tudd leen sax mooy journaliste. mooy Aysatu Aysatu moom léegi buma bu buma jógee ko tuddé damay wo mom lu ko ñi wax mom dañuy xuloo bané ne saay maa ngi moom waaw Aysatu daal ko personnellement man ko dara moy am nak mbax wa wa waye nak politicien la du journaliste lepp lu mi wax amna lu waaw moom day business daal day dóor dóorkat la daal ma waxee la moom yab naa <laughs> moom moom <laughs> moom <laughs> ay sat ma ne ko wala ko teg daa génn suñu diggante rek waaw ay sat moom loolu mom xamna ko ci mom budé binta man yakar né di gëntém ak Sonko yalla ci lamay ñaan rek yalla bu mu nek it ni dal waaw man loolu lay loolu lay ñaan dal binta bu fekkee maanaam cokkaas gi xex gi mom yalla bu mu nekk it ni rek waaw yalla nakoy principe lal dal parce que xaw dina koy diglu nak daf maa nuru ku xam ni fi mu mer mi daal dafa sori. xam nga nit mere ko di ko xeex ba mu xam nga Sonko li ngay njëkk a seetlu mooy ku koy xeex xoolal plateau bi nga koy xeexee bi nga moom yow di ko ci xeex li ngay njëkk a ñàkk njëli la fa seetlu ko bu baax maanaam képp ku jàkkaarloo mu da ngay ak wàññi ko gu wér waaye da koy jaral nag léeg-léeg nga ci kon loolu da koy jaral daal koy jaral ñàkk fi muy liggéey ñàkk sa lépp parce que Sonko mooy koo xam ne koo mas a gis mu song ko moom bay boo nga paree li des ci sa àdduna moom màggaluk tuubaak poroxaanak siyaar baak dëj baak ngénte lay ci sonko ngay wax par force dootul wax ci leneen fii ne Moustapha Diakhaté ba ba muy faatu dootu wax ci kenn sonko rek fii ne Aïssatou daanaka sa très rare ngay dégg muy wax ci leneen lu dul sonk sonko rek parce que dana maanaam dangaa mel ne kuy xulóog jamono xam nga yent bi ne woon laa tasubu dëhra <laughs> na dëhra wala maanaam léeg yàlla day nekk jamono te doo ko yëg <laughs> fii nag Sonko maanaam xulóog moom ak jéem koo yàq day mel ne maanaam nga jàkkaarloog jëmmi suñ borom bi di xulóog moom du jëmmi yàlla waaye jamono jamono léeg-léeg jamono day tolloog yàlla ndax yàlla day feeñ ci jamono nga bëgg a weddi nga bëgg a réalité bi weddi gi ngay jéem a weddanteeg jamono nag moo lay jural daanaka day yàq sa jamono yow fii ne maanaam Sonko ñu yàq seen jamono rek ñoo ko topp fii ne Moustapha Diakhaté dee ko seetlu boobu boo doon wax ci tele même boo ko midoon da lay wër na ci Sonko lay wax ma mënut a waxati ci leneen moom ay Aïssatou Diop Fall dootu wax ci leneen daf fii ne Ndeye comme mën a doon parce que maanaam àdduna la ñuy xulool daal loolu nag moom yow yaay xool léeg-léeg am ñoo xam dalañ koy jaral parce que dem ba perte fi ngay liggéeyee que ndax dalay wóor na lii yow position yi ngay jël moo la ko jox Aïssatou Diop Fall kasaalika keneen ak keneen noonu dégg nga léegi nag bu dee Ndeye Fatou moom Ndeye faatu ma li ma gëm mooy xam nga Ndeye Fatou mooy ñi njëkk di invité Ousmane Sonko ci tele xëy na Sonko dafa am nu muy doxee boo ko xamut danga naan danga kay woo doo ko jot wala nga jéem koo teg benn affaire mu bañ nga ne xaaral ma xupp ko léegi nag jéem a toog ci tele bi nag ne xaaral kii bu ma ko yenee lu metti rek am am li ma bëgg fekk du yoon wi ñaar doo ko réussir mooy Ousmane Sonko ci jëmmi boppam boo ko dee xupp ka attaqué du tax mu du tax mu déng deng ci li muy def deuxièmement mooy population bi danañ dal ci sa kaw ba far yow la nga doonoon dootoo ko doon léegi nag toujours nag da ngay jéem a ne comme man ñàkk naa la ma doonoon dinaa fexe ba kee ñàkk lim doon te doo ko réussir parce que man damaa gëm ne ko am ak relation Sonko la mais bu xamul nu mu koy utiliser rek maanaam même Modou sa Dieng man loolu laa jàpp quoi xamoo nag yàllaa xam mais dama jàpp ne day am numéro Sonko xëy na mm, bul xam daal ay mer yeneen la yoo xam ne doo ko xam mais loolu faju ko. xam nga ni ma la wax léegi nag Ndeye Fatou mom yakalut kenn bugaan la yakal ka bugan nekut ci ginnaawam. yak ah, yàq mi ci ginnaawam xaw mi ci kanamam mais xam nga li ñepp doon bañ moy tay par exemple bugaan yorup télé yor joni joni di liggey bam yag yàgg mu ne day def politique sëñ saliw yow sa xel dana ne bugan ba du jël télé bi bëkk ko politiser xam nga ding ko xalat nga ah waaye Bougane nit la na ragnet ràññeetle ay journaliste la yor di ay gor yu jang ñuy traité information pour Sénégal mu yorat fee am mouvement mais su demee bam yag manam mana la nga né won addu ah, ko def kat manam mujj la leer na la def nako parce que amul ben membre comme sa wax ma ben membre gëm sa bop bo xam ta xamé woko ko TV wax ma day melni manam sa bop manam moy seen TV seen TV moy gëm sa bop te loolu moy jël sa alal ji nga xam yow ak sénégalais si ñewul wu leen contrat bobu waxo leen dama tijji tel parti parti bi day am télé ku bëgg xam ci parti bi dara ak position parti bi day sétan télé bi waxo loolu sénégalais mais muuj doon ko dal légui nak loolu da ko lu yàgg nga xam da ngay doon boroomam xel hmm? pour mëna gis loolu Kader yàgg naa yàgg naa nekk TV di waxee ni muy waxee mais do ko nante keneen kooku moo gën a dee kooku nee na mas naa ko adiko maanaam bu ma nit tuddalati Ousmane Sonko mooy kenaan suriste la rek te ta ñu xaw a taq bu ma nit tuddalati Sonko parce que bokkatut bu ma ko kenn tuddalati ku ma ko laajati ma la ci tontu xam nga foofu kereer yëggu fa pourtant malgré loo loolu da nga daan accepté mais bi Ndeye faatu ñëwee dafa dindi kiiraay yi moom dafa ñëw daan ne maa ngi nii léegi nag après ci Ndeye faatu nga naan ah bon kon kereer sax kon nii lay def wa kon son bi nga kon ni lay recruter diw sax commence remettre en cause ñii fuñ jangé fuñ fu xam nga parce que lu lepp ndey fatou mo ñew dindi ray gi mom mo ñew mom di gatsa gatsa ak Sonko quoi comprendre nga léegi nag man nag maanaam dafa jëlee dafa lepp luy hayba bu télé bobu amoon daf ko walé ko yàq mi ngi mel ko don nan di ko nëbb ba nga far jeng ndey fatou mom manam lolu moy problème bi quoi voilà léegi laaj bi personnellement aw ma ak moom problème boo dee xool sax c'est la première fois tey laa ko njëkk tudd parce que bu dul dara am na leneen lu ñu lee ma ak moom euh, lu lu bokkut daal loo xam ne du ma may ma nekk à l'aise ma koy may may tudd turam di wax ci moom mi ngi ci côté am dafa am loo nga xam ne nag maa ngi koy jéggalu sax ni ma ko tuddee nii parce que jàpp naa ne nit ku baax la am na lu ñu mës a séq ma moom te vraiment lu baax la ci def naa ko témoyen mais na jàpp ne rek. Hmm. accepté nañ ñun bu baaxa a baax avec plaisir ñun wa Pastef wala bok ñun ñi fété pouvoir bi mom mu tok na jangat na wax man nañ ñu accepter ñun tamit dinañ def suñu façon pour défendre suñu état deng mais nak du doon violence du doon saga du doon dara mais nak ah même kan lool la koy wax sama nit la sekk <laughs> nañ jàmm waaye daal man dama yor rabu ndëpp waaw man daal rabu ndëpp laa yor. exemple li tax ma ma fan eh, yee ñuy wax. daal démb rek wax na ci yow. waaw non gis naa ko man nag man nag li muy wax noonu. li muy wax noonu. non duma ko ko weddil quoi naa ko bàyyi rek. dégg noonu la demee wu noonu waxeewoo ma ko néeg lii lii mais man de li ma wax man man Cheikh Bara bu ma nee man maa def. wala maa gis. Hmm. buñ doon wàccee jant bii. Hmm. duma ko weddi. comprends nga li ma la wax du ma ko weddi waaye man bu ma nee ah sëñ Saaliwu Ñang nee na ma sëñ Saaliwu Ñang ni moom noom loola mu waxoon waxatu ko ah man dama naan loola waxatuma ko ma it amul problème dégg nga waaye man damaa yor rëbb ndëpp boo xam ne ku ku laal Ousmane Sonko te tegoo ko ci lu leer walla nga ma gis ne mbañeel rek nga am di asar newu ci kawam bu doon dañuy sëy maag yow sëy ba tas na loolu moom yàlla ma ko nattoo daal nangu naa ko. léegi li ah, sama lépp la. mais vraiment suñu ñaari weer yii. liñ liggéeyal senegal bu ma nee taxaw fii naan doxut baaxut. di ko sabootee tam nekk lépp loo xam ne da koo nas lépp lum nas la préparé ko moo taxoon <laughs> li ma xam bari na <laughs> waaye dinañ ñëw. waaw <laughs> nan nan nan yërëm bugaan bugaan. maam Matar Gueye maam wax maam Matar li ñu boole rek. moom loolu la waroon a xam. mooy attaqué Sonko rek. loolu rek nu boole man ay don fen kii fen kaa man fet man at gis nga Sonko man aw ma man sama jëmi bopp jii du ma boole kenn. fii noonu muy wër naan Cheikh Baara na bàyyi fen fen lii te moom <laughs> waaye wallaahi la si. mom mom budul dara sama mam la wala sama bay, sama bay ya dal sama kilo te Moulay hasis gey mi may nuyu bis bu nek ak mom ño bok sen ben bay daanaka comprendre mam Matar gey baye Moulay hasis gey len ko tudde te buma amé ben xarit ci aduna Moulay hasis gey la comprendre nga ci des moy eh, Rusna, Rusna man rusna wallahi ñaan ma yak mam Matar yene ngi dem ci yoon lolu luma rus la comprendre nga euh lima bolé ak mom man du sama affaire yi bop <laughs> Sonko dafa wax ba nopi manam te lima lay wax ni waxna ko Sonko bu waxé ba paré yow nga ñew di jema non suma ci waxaatee sax day mel dama yéwaat problème sama digënté ak mom ah, lay ju gëna faral nañ jubo nañ légui jaxna man man man baalu naa ko. Ah. <laughs> nee na woo nga ko ba tuubal ko sax <laughs> léegi wane nee na moo la woo khawaja na wax dëgg yàlla te man xam nga dama jot na ñetti fan di man xaw ma mam Matar la wuyu mu ko ndax damaa nekkoon jamono boobu maa ngi yendu ci dialogue bi mu ñëwee damay nelaw dinaa gis en appel en absence lu bari amul problème man sax dama ne woon dootuma waxati loolu ci àdduna comme waaye waxtaan wi egg ba egg ci Mom juboo nañ te man man madul setan seetaan ñiy demante yoon maak moom amul ben problème amul problème Eh, sëñ Eras eh, nu mu tuddati manam eh, affaireu u Jamra loolu noonu la ci lolou la ci wax amul problème.